Wait, I'm out of winning. You need to mind délégation bi ñu gën cee ràññee Mourou Mamour Lo Serigne Diri Mbacke li nga xamante ni bu jógee ànd ak ñoom Mourou Mamour buñ ko tuddee moom Serigne Djily tudd nañ ba délégation Soxna Bally waaye mu ànd ak Mamour mi xam ni lu mu wax lu soxna si wax la wax lu soxna si waxul ko fu soxna si xool la xool fu soxna si xoolul xoolu ko doon taalibe ba pare doon doom ci biir kër gi toog Modou Mamour Lo mu ànd ak kan Moustapha Babou maam Cheikh Babou mu baax mu yaru nii nga xam ni barki démb dafa jël soxna soxna jël soxna baali jox ko njëkk la waaye loolu boo ko defee def nga li war def nga li nga xamante ni si allah ku ko dégg xam ne def nga rafet ndax ki ko defal jar na ko soxna baali sox sooy yal yàlla guddal baax di koo xam ne am leen ko naa réew bi di astor di alaaji Seydou si biir ñu ngi lay nuyu baax di la jox sa wàccuwaay ngeen fekk al ajaltu Anta Gueye mii toog moom it ci biir délégation Sonacos mën na cee dugg waaye mën naa ñëw ci turu boppam ndax digganteem ak Bijou ndax kat kër Sonacos yi famille la ñoom ñëpp bokk ndey ñoo bokk baay Sonacos yi yaay ñëpp moo leen jaboote ñoom ñëpp ñu bokk ndey bokk baay ba pare yéenante jàmm lu ci sa morom xewle boo gestoo say morom ngay dëgg gis loolu nag mooy ki nga xam ne moo moo leen yar ci jikkoy boppam muy kon soxna Amaama Ba ak soxna Nabu ñoom ci délégation soxna Baali la ñu bokk waaye bu ñu waxee soxna Baali Muntaxa Ismaïla Mbaye toog nii am na ci kàddu balaa Seydoo ñëw ak Mamour Lo ndax moom kat la moom ci soxna Baali Ismaïla Mbaye sa digg soxna Baali ak sa digg ak Mamour Lo ab dëj ne da koy mbir mu sacré ne nit ñi di ñëpp ne baas bii ne ko mos baasal ne yéen yéen téléphone di filmé ne ngénte mënees na koo filmé ne jéeg mënees na koo filmé waaye ab dëj jarul di caméra ne loolu dafa ëpp ne te loolu it Serigne Djily Mbacké bi nga xamante ni bu jógee ànd ak ñoom Modou Mamou pour ko tuddee moom Serigne Djily tudd nañ ko délégation la bali bi waaye mu ànd ak Mamour Lo xam ni lu mu wax lu soxla si wax la wax lu soxla si waxul wax ko lu xool la xool lu soxla si xool xoolu ko taalibe ba pare doon doom ci biir gi mi ngi ni toog Modou Mamour Lo mu ànd ak kan Moustapha Babou maam Cheikh Babou mu baax mu yaru mii nga xam ne bari ci démb dama soxna soxna bu jël soxna baali jox ko njëkk la waaye loolu boo ko defee def nga li war def nga li nga xamante ni si ko dégg xam ne def nga ko rafet ndax ki ko defal jar na ko soxna baali sa sooy bi yàlla yàlla guddal sa fan ñu ànd ak kan sunu waayu bopp jii di sunu mag di sunu xarit di ku baax di koo xam ne am leen ko naag réew mi as gor di alaaji Seydou si nii toog ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay fi ngeen fekk al ajantu Anta Gueye nii toog moom it ci biir délégation Soxna Bali mën na cee dugg waaye mën naa ñëw ci turu boppam ndax digganteem ak biisu ndax kat kër Soxna Bali famille la ñoom ñëpp a bokk nday ñoo bokk baay Soxna Bali yaay ñëpp moo leen jaboote ñoom ñëpp ñu bokk nday bokk baay ba pare yéenante jàmm lu ñu sa morom xewle boo gestoo say morom ngay jëkk gis loolu nag mooy ki nga xam ne moo leen boole moo leen yar ci jikkoy boppam muy bëggante soppante yénente lu baax kon soxna Amaama Ba ak soxna Nabu ñoom it ci délégation soxna Baali la ñu waaye bu ñu waxee soxna Baali mun taxaa Ismaïla Mbaye nii am na ci kàddu balaa Seydou ñëw ak Mamour Lo ndax moom kat doom la moom it ci Soxna Bally Ismaïla Mbaye sa digg ak Soxna ak sa digg ak Bijou Mamour ne ab dëj nee dafay mbir mu sacré nee ñun ñi fi toog ñëpp nee baas bii nee dinañ ñu ko mos a baasal nee na yéen ñu yor téléphone yi. Serigne Dina Mbacke bi nga xamante ni bu jógee ànd ak ñoom Modou Mamour pour ko tuddee moom Serigne Dina pour la bali bi ñëpp waaye mu ànd ak Mamour Lo mi ni lu mu wax lu soxla si wax la wax lu soxla suubu luux ko bu soxla si la xool bu soxla si doon taalibe ba pare doon doom ci biir mi ni toog Modou Mamour Lo mu ànd ak kan Moustapha Babou maam Cheikh Babou mu baax mu yaru mii nga xam ne bari ci démb dafa jël soxna soxna jël soxna baali jox ko njëkk la waaye loolu boo ko defee def nga li war def nga li nga xamante ni sii macha ko dëgg xam ne def nga ko rafet ndax ki ko defal jar na ko soxna baali sos sooy yàlla yàlla guddal sa fan ñu ànd ak kan sunu waayu bopp jii di sunu mag di sunu xarit di ku di ko xam ne am nañ ko naag réew mi yëpp di as gor di alaaji Seydou si nii toog ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay ku ngeen fekk al ajantu Anta Gueye nii toog moom it ci biir délégation Soxna Bali mën na cee dugg waaye mën naa ñëw ci turu boppam ndax digganteem ak biisu ndax kenn kër Soxna Bali famille la ñoom ñëpp a bokk nday ñoo bokk baay Soxna Bali yaay ñëpp moo leen jaboote ñoom ñëpp ñu bokk nday bokk baay ba pare yéenante jàmm lu boo gestoo say morom ngay jëkk a gis loolu nag mooy ki nga xam ne moo leen boole moo leen yar ci jikkoy boppam muy bëggante soppante yénente lu baax kon soxna Amaama Ba ak soxna Nabu ñoom it ci délégation soxna Baali la ñu waaye bu ñu waxee soxna Baali Muntaxa Ismaïla Mbaye toog nii am na ci kàddu balaa Seydou ñëw ak Mamour Lo ndax moom kat doom la moom ci soxna Baali Ismaïla Mbaye sa digg ak Soxna Bally ak sa digg ak Bijou Mamour ab dëj nee dafay mbir mu sacré nee ñun ñi fi toog ñëpp nee baas bii nee dinañ di ko mos a baasal nee yéen yor téléphone yi. muy jëm yu baax yi toog délégation bii toog. di délégation ku baax di délégation ku gën di délégation day ñëpp di délégation koo xam ni bu bànnee amee boo gëstoo gis délégation waaye bu naqar amee boo gëstoo gis délégation muy yaayi bisu ngóone ñu toog bisu dagana nii nga xam ne nee naa ko sa na waaye jëkku la askan wi nga bokk yaay dina jur jëkku la say mag yi nga bokkal jëpp wul na sa rakk yi nga bokkal jëpp wul na waaye sa doomi bopp yi nga jur jëpp wul na. léegi bi délégation bi ñëwee danaa Modou Mbaye maa ko naan mun ma dama nga woon ma bii bi mii sama mag mu ñëw toog ndax délégation bii mooy délégation bi ma gën a ñor délégation bi ma di def lépp nekk na ma nag waaye sama délégation yaay bii day sama délégation bopp madame bi mën ci démb la jur doom ñu def ni biir Ndagala te kat aw tur boo ko tuddee jikkoom neex na kon nawul jikkoom doo ko tuddee sa doom mu foog doom mi tëb tuddee biir dakat kon tey bu seen waajur yi génnee àdduna ngeen toog ñu jël yéen ñaar ku ñëw bi ñu dëj bee tax déedéet lii démb la waaye délégation bi ñëw ci délégation Sonapari ñu ndaxaa Sonapari section yi bi jàmbaari diine bi jàmbaari